émission axiru zaman bi nu mujj def ñu ngi doon waxtaan ci mbirum fecckatu ngóor soo sekk doon fóonante ci kaw seen ba dogal tirbinal jël na ko ci talaata ji nu génn ba daan leen atu kaso bu ñuy tëdd benn weer euh, loolu nag moo waraloon ñu jagleloon ko waxtaan spécial doon ci waxtaan di dénoncé jëf ju bon ju ñaaw ju yées jooju noonu le waaye tamit laawaale ci ngóor si sekk di waali nga xam ne fan yii ñu ngi ko gis mu génn di victimiser wu Sénégal léegi dañoo tàmm nit day def mbonam def musiba mbàbba kumbaam ba noppi génn di victimiser wu nit ñi naan bàyyi leen ko doomu jàmbur la ak nangam ak nangam mbokk yi kenn ku nekk jug di wax mel ne ñeneen ñi moom nekk ñu doon doomi jàmbur mel ne ñeneen ñi moom nekk amuñuy mbokk ba léegi nit ki daal mën na génn def lu ko neex affiché wu di pibliel wala di euh, affiché euh, góor jigéen ñi seen i mbir te loolu nëbbatuwul waxoon naa ko ci aaxiru zaman bi weesu bi mbir yi jógee fan yi mu génn wax waxam jooju na leen di victimiser wu ak di menacer waate sénégalais yi ñi nga xam ne yeewu nañu ci bari Euh, wala ñenn ñi sax du ma leen tuddee ñu yeewul ñoo ko tey ñoo jël position pour na ñu ngi koy défendre ñu ngi jël wax ji di jaxase ñaari bokkul naan waaw ki ngeen naan góor jigéen la ki ngeen naan góor jigéen la dafa am ñaar promouvoir góor jigéen ak góor jigéen man mosuma prononcé sama làmmiñ tuddee Wally sekk góor jigéen mosula am du benn responsable tamit ci ànd sàmm jikko yi comme ni ma ko waxee woon ci DTV bi ku mos a génnee ci làmmiñam ne Wally Seck góor jigéen la ba mu solee ko def ne mi ngi promouvoir ak góor jigéen te ba léegi tamit ci loolu la ñu nekk heure bu defee lu jege lu mel noonu ñu génn dénoncé ko waaye mosuñ ko tuddee góor jigéen ba aw nit génn naan waaw ki ngeen naan góor jigéen bettu leen ko góor nangam ak nangam loolu mosul am loolu jéem a lëndamal xel yi la ak jéema dugal nit ci mère morte ne yaa ngi ko ciy jéem a sang la waaye yooyu yëpp du jàll yooyu yëpp du jàll waxoon naa ko ci DTV bi dama ci del siwaat du ma ci yàgg du ma ci yàgg ndax am na loo xam ne nii la ma waxoon ci àxru zaman ba bi weesu loolu laay ba tey fit ñoo ko ko ëpp téeméeri yoon buy jaay fit ñoo ko gën a bari fit lépp lu mu ko jaral ci gars yi di affiché wu ci côté mu leen di promouvoiral ak ngóor jigéen bu bu ko jaralee téeméer jaral nañu junni pour taxaw ne du fi amee du jëm kanam loolu moom jarul sax ñu ci sonn di ci discuter wax ju bari waaye li mujj am nga xam ne ni ci lañ profitoo mën naa ne ñoom ñoo ko def benn euh, ñoo ko tey euh, def benn paanu technique am leen lu affiché wu niroog drapeau góor jigéen ñi ñu ci bari génn di wax ci la ñu profité ndax ñu bari génn nañu naan waaw gis nga defati na lam defoon teeloon naa alerté ne attention bu leen dugg ci ndëgg sërax ndax li mu jaam bokk ak la nga xam ne moo amoon li wees woon la amoon li wees woon loolu drapeau góor jigéen la soloon ci kaw seen góor jigéen yi bind di ko félicité loolu lañ doon dénoncé li mujj am tamit ci nga ci concert ay góor di fóonante loolu lañ doon dénoncé waaye li nga xam ne moom moo mujj am ci la ñu profité def paano technique mën naa am ñoo ko tey te loolu laa jàpp sax na ñoo ko tey pour rek sénégalais yi ne waaw gis nga defati na ko man leen non attention du luy ñu lu nekk nag këriñ la li ja am ni moom laalewul ak la daan am waaye nag profité nañ ci gannaaw gis nañ ne sénégalais yi ñenn ñu ci bari euh, xàmmewuñu euh, janj ak joor xàmmewuñu drapeau góor jigéen ak lu ñu drapeau góor jigéen ñu profité ci génn wax moom itamit ci la mën a profité génn wane ne waaw du lii du lalee mbokk yi tamit génn nañ ñu ngi koy défendre ba tax na yooyu noonu le nañ ci bàyyi xel tamit euh, borom salaatul fatih day jàngale naasiril xaq bil xaq dëgg dañ koy dimbalee ci kaw dëgg ñun li ñuy wax làmbatuwuñ ko ay preuve la ñuy am lu leer teg ko ci kaw taabal ci bu fekkoon ne li mujj am mbirum góor jigéen la woon nit ñu defee woon axiru zaman dénoncé ko woote woon journée xeex mbon nga ca mosquée inachevé woo kilifa yëpp ñu toog ñu dénoncé ko lu mu mel tamit la ñuy defaat waaye ànd sàmm jikko yi dafa teel a jël matuwaayam moo ne ne ah du loolu kon ñun amuñu problème ak Wally Seck ak ma ak Mademba ay ñu ko dàq woy junni yoon laa jàpp na ñoo fi nekk damay déglu musique waaye mënu la woy ba dàq woy Youssou Ndour ci li ma jàpp ñiy déglu Youssou Ndour a ngi fi xam nañ te kenn mësu koo tudd di tudd yu mel nii ci ay LGBT ak di leen jàppale te bu ko doon def mais seexalul sénégalais yi lem sénégalais yi ragaluñ ko ba bu ko defoon ñu dénoncé ko woy juram coon sekk jaar na fi yàlla ko yàlla yërëm kenn tudd ko ci lu mel noonu Omar jaar na fi kenn tudd ko ci noonu Baaba Maal kenn tudd ko ci lu mel noonu woykat yu baree bari ñi leen di déglu Euh, safoo leen ña ngi leen safoo ca la ñu nekkoon euh, ñu nekk ca di ca bégal ñi nga xam ne nii loolu moo leen saf ñu nekk ca mais kenn mosuleen leen tudd ci ay LGBT ki yeneen yu ni mel kon bu demee ba nga xam ne nit ñu ngi ko ciy tudd ay at yu baree baree bare dama yaakaaroon ni ay mbokkam dañoo waroon taxaw ne ko ah xoolaatal sa bopp defaral sa toogaay xoolal sa entourage mooy tëndikul nangam ak nangam mais pas génn di accuser sénégalais dañoo soxor ak génn di menacer waate yooyu noonu le pët pët dafa tàqalewul mbaam ak i noppam pour muy leer fii tàppet nekku fi ku ragal nekku fi ku ko fi def danañ ko wax naa ko def te kenn di ko wax fenn la amul loolu pour muy leer ni ma ko waxee woon man Makhtar Sarr sama maam ci daara lañ ko reyee maam Lamine Saaray sama maam ku sa maam dee nag ay noon ray ko doo ragal kaso doo ragal bàmmeel ndax yàgg-yàgg fa ngay mujj muy bàmmeel ñun bàmmeel sax la ñu gën a sóoraale ak yeneen yi ci des ba tax na yooyu noonu lañ ko bàyyi xel bu baax a baax li fi mag woon muy suñ ndono dañuy wëy di ko sàmm tey bu demee ba nga xam ne nii Europe ñu nga génn dugal Sénégal ci réew yi gën a bañ góor jigéen mais taxawaay moo ko indi te dafay gën a yokk barki de moo njaay la Occident bi génnee ñett réew nee nañ dañoo bañu ngóor jigéen amuñ tolérance dugal leen ci réew yi gën a radical ci ngoor jigéen Sénégal benee gana ñu dugal leen ci biir loolu mais lan moo na ko may lan moo tax yeneen réew yi nga xam ne ni tey boo demee diine sax xëy na ñoo ci njëkk a jot Sénégal ci Afrique ñooñu kenn dugalu leen ci biir réew noonu la mais dafa amul ñuy bañ am na maam ñu fa nekkoon démb yu meloon ne Cheikh Al Hadj Omar ak Serigne Touba ak maam Boukounta ak Cheikh Al ñu daan bañ mais seen sët ya tey taxawuñu bañ tey nag ñun sëtu mag ñooñu noonu le dem nañu waaye nag am na luñ ñu jàngal bàyyi bàyyil ñu ko fi muy mbaax gi ñu xeexoon gàddu jaas yi xeex ba mbaax googu ñu indil na ko ñun gàddu wuñu jaas yi mais danañ gàddu suñu làmmiñ ak suñu pas-pas yu dëgër ngir sàmmal mbaax googu noonu le suñuy doom ak suñuy sët bañ jot ci ñun xëy na mën nañoo mucc mën nañoo raw am na yoo xam ne kenn mënuñu cee dugal mais nag suñuy doom dañoo xamul ëllëg fan la ñu jëm tey bu demee ba ba góor jigéen yi nga xam ne ñoo nekk France seen kuréel ba ajuma ji weesu la ñu génnee benn communiqué bu doy waar communiqué lañ génnee di rafetlu décision boobu noonu les européens yi jël pour dugal Sénégal ci réew yi bañ góor jigéen euh, ñu félicité leen ci mais ci biir communiqué bi dañ ciy wax lu doy waar nañu sàkk woon ci ministre intérieur bu France pour ne na fexe ba euh, xalif général Tidiane sëriñ Babacar Sy Mansour bu mu duggati France nañ ko fa tere sëñ Abdourahim nañ ko nañ ko tere bu mu duggati France tudd yeneen i autorité yu nekk ci réew mi ne nañ leen tere buñ duggati France même kuréelu góor jigéen yooyu noonu lañ may tuddee bàjjana góor jigéen yi ñoo génnaat ne léegi lañ sàkk woon ci ministre intérieur tey ñu ngi koy sàkk ci gouvernement du Sénégal mooy ñi nga xam ne ni ay oustaz la ñoo koy imaam ak sëriñ yu radical bañ ngóor jigéen di woote ci ngóor jigéen ñu def leen yëg lële nañ leen jàppee ay terroriste dégg ngeen ay terroriste nañ leen ko jàppee ñu sàkk loolu yamuñ tamee ñu képp kuy jàppale ngóor jigéen ci Sénégal nañu jug résister nañu jug taxaw fippu taxawal benn collectif boo xam ne dañ koy tuddee firi Sénégal góor jigéen yi ca France ñooy joxe ay directives fii ci Sénégal ci ñu leen di ñuy jàppale góor jigéen yi ak góor jigéen yi nañu taxawal collectif firi Sénégal collectif boo xam ne dafay libérer Sénégal maanaam Sénégal daal dañ ko jàpp otage ci leen bañ góor jigéen ay waay sàmba fii ngeen ñuy fekk na ma ko waxee woon fii ngeen ñuy fekk waaye nag loolu yëpp gannaaw euh, daje ànd sàmm jikko yi xam nga mbóot yëpp nag ci lañ génne ndax waxoon naa ko ànd sàmm jikko yi dafa génne yoo toog sam wis ko mbóot yëpp moo tax mbóot yi di lappi-lappi boobu ba léegi waaw te mbóot yi mag yee ca France nag ñoo tàmbali lappi-lappi ba ci mbóot yi ndaw yi nga xam ne ñoo nekk Sénégal waaw yàgg-yàgg tamit nag bàyyi ndi ko rek mbóot moom boo ko dóoree yoo toog si muy tëbaka dal toogal di ko seetaan nag yàgg-yàgg dafay bàyyeeku ala kulli ba tax na loolu nga xam ne moom la ñu sàkku talaata ji weesu ci lay daanelee le témoin journal le témoin dafa def révélation bu doy waar Cheikh Madiama le témoin nee na góor góor jigéen yi dugal nañu deux milliards Sénégal deux milliards dem leen ngeen gëstu ji journal le témoin moo ko bind site yu bëri Sénégal ba yeneen i site reprendre nañ ko ne góor jigéen yi dugal nañu deux milliards Sénégal lan moo tax ñu dugal ko fi mooy ku leen mën a defal promotion ci woykat yi ci ñi nga xam ne influenceur lañ ci ñi nga xam ne ay porteur de la na donte journal bi nee na amagul benn woykat ak porteur de voix ak ñu mel noonu koo xam ne nii gisagum nañ ne nangu naa jël ci xaalis ba pour defal leen luñ bëgg benn magasin daal lañ gis boo xam ne accepté na moom pour war leen a defal promotion ci mois bi nii loolu noonu le <laughs> bu euh, keroog bi ma gisee journal bi bind wala wala euh, bàjjana góor jigéen ci France bind di menacé waatee di wax ne nañu taxawal firi Sénégal ak góor jigéen nañ fipp ci laa ne ba mu leen bett ngeen xëy rek gis ci médias yi ñuy attaqué ñi ñi ñi ñiy xeex ngóor jigéen bu mu leen bett te ba léegi bu mu leen bett tey muy Makhtar Saaro Babacar Mbuubo Adama Mbuubo Abdou Karim Guèye ñu affiché wu ñëpp ci xeex mbon bu mu leen bett aw nit génn di leen def di leen attaqué te te dèjà tàmbali na yaa ngi gis ay palato te la ñuy invité nit ñuy attaqué ànd sàmm jikko yi ñan ñooy ànd sàmm jikko yi mooy xalif général yi ci réew mi yëpp imaam yi ci réew mi yëpp nitu diine yi ci réew mi yëpp waa jàngu bi waa Bois Sacré association yi ONG yi kuréelu imam yi ñooñu ñooy waa ànd sàmm jikko yi léegi aw nit ñi ngi taxaw di leen attaqué di daal ci seen kaw gis naa a kenn koo xam ne mi ngi wax ci benn plateau naan waaw réew mi bu fekkee am na lu ñu war a wax xalifa yee ko war a wax waaye du waa ànd sàmm yi moom xamul ñi ci nekk mooy mooy xalif yi ci réew mi lii ñu demandé pour ñu criminaliser ngóor jigéen xalif généraux yi ci ko ñëw te ñun sóoraale nañ ko yàgg nañ ko bàyyi xel bàyyi nañuy xel attaque bàyyi nañuy xel plainte bàyyi nañuy xel menace bàyyi nañu xel lu nekk moo tax ñun ba ñuy départ ànd sàmm jikko yi la ñu volonté ñun ñëpp nañ jënd suñu càngaay ak lépp lu muy àndal ñu jël ko di ko bokk fu ñu jëm loolu pas-pas la ba tax na kon bu yeboo nañu xam ne Sénégal du ñu bàyyi lenn li muy jàll lu mu laaj nag dañ koy def lu mu laaj dañ koy def ba tax na yenn yi mënuñoo yëngal sax bu yeboo ñu yeewu ci bu baax a baax Sénégal gi moom ah xaw ma génération yi ñëw de mais fi mu toll nii ngóor jigéen ca àll kutiya ca àll kutiya gis naa benn journal bu def benn jàngat xaw ma ñan a def sondage bi ne gis nañu Sénégal yi quatre vingt dix nangam pour cent dañoo bañ a ngóor jigéen man leen na gën a yokk te dafay gën a yokk incha allah taala mbon gu nekk dugg na fi ñu toléré ko mais ngóor jigéen moom ba léegi sénégalais yi ni ngi taxaw rek jotu jotu ne soccet te nag bés bu ñu bàyyi ni ko tuuti rek dana am prof loolu yu ñu jaar pour nekk loo xam ne ni dootuñ ko bañati ndax foofu la ñuy tàmbalee dañuy tàmbalee dootu la métteeti dranseetu la sama yoon nekkul ci ñoom waa kay léegi buntu ubbeeku na nag ci la ñuy jàllee ba légaliser ko góor jigéen ñi nekk ci mbedd mi fonanti te loolu nag wala iyaadu billah bu demee ba Sénégal ñu ne góor jigéen ñi ñu ngi fiy takkante fonanti see boo ñu sulli suñ bàmmeelu mag ñëpp suuli leen feneen mukk du fi mos a am Sénégal mbaax a mbaax moo moo suuxat suuf si mag ñi fi tëdd mais yenn yi du jàll te nag lu ko def wala maa ngi invité sëriñ daara yëpp euh, ma tey rek maa ngi ciy xalaat ma jama baal ma maa ngi guddal tey rek maa ngi xalaat euh, ma ne jar na ñu ñu ñu woote journée nationale pour defi dog jëmee ko ci LGBT yi ñi leen di jàpp ñi leen di jàppale jar na ko te loolu noonu la wax naa ko danaa ci xalaat bu soobee danaa ci dox yi jéego ndax mbir in il faut baatin dugg ci du nekkati waxu kese nag waaw waxoon naa ko ci aaxiru zaman bale weesu il faut baatin dugg ci course yeeg kaamil yeeg dog yeeg lépp lu gars am ci bagage il faut ñu génne ko def journée boo xam ne dañuy jëmmaloo gaañee ci baatin mu bañ a rek ci wax ndax da koy jar nag da koy jar mais du ñu seetaan yàlla alag nu comme nu alagee woon xeer yu weesu donte du ñu alag comme na mu leen alagee woon mais nag musiba catastrophe yi ñu dund ci réew mi réew mu naqari mu métti ndox yu manqué lu nekk ñu koy jàmbar accident yu bari mais yooyu noonu la ay musiba la yoo xam ne nii ngóor jigéen ko indi ak lépp lu koy promouvoir loolu ko xeex yaa ngi dimbale ñëpp yàlla ñu yàlla defal sutura yàlla musal ñu seytaane ki pexem